merci Aïcha euh, je pense que la question est pertinente mais avant dina baax aussi ñu xamal ñi ñuy seetaan lan mooy TDS euh, bi ñu defee révision code de la presse dañu def li nga xam ni mooy euh, séparation chaîne de valeur audiovisuelle mm-hmm. euh, ngeen gën ñu ko xam parce que ay journalistes ngeen ñu ni kenn mënatul doon éditeur doon en même temps opérateur de diffusion loolu lan lay tekki éditeurs yi muy 7TV muy RTS 1 muy 2STV muy toutes les chaînes nationale seen liggéey mu ngi yem si li nga xam ni mooy l'édition des programmes le l'État du Sénégal à travers la vision de son excellence le président de la République créé à travers la loi 2017-28 du 14 juillet euh, la société télédiffusion du Sénégal mu doon l'opérateur de diffusion nationale. mm La mission de la TDS mooy Euh, chaîne nationale yi bu ñu defee seen édition c'est à nous de faire la collecte des programmes ba suñu centre de traitement def si li nga war yëpp ba mën ko tasaare si Sénégal ba sénégalais bu mu bu mu mënti doon fu mu mënti nekk lu mu ruqaraqee mu mën a seetaan télé déglu rajo loolu mooy la mission de la TDS mission boobu nag depuis 2017 ñu nekkoon si avec l'ancien directeur Amadou Abdoulaye Diop. bi mhm. nga xam ni le président dafa porté woon sa confiance si moom. mu jëlee société bi foo xam ni dara nekku fa woon indi ko ba 2023 euh, le président de la République ci prérogative bi mu am mu nommé une femme à la tête de la société muy docteur Nafissatou Diouf. Mhm. bi mu ñëwee aussi euh, ñun en tant que syndicat et délégué du personnel. ñi nga xam ne ñun ñoo yor baatu personnel bi euh, boo demee au niveau de l' inspection nationale ñun nga fay fekk suñu tur ñun ñoo am mandat pour parler au nom du personnel ñun ñoo am mandat pour négocier au nom du personnel bi mu ñëwee toog nañu ñu nekkoon ci benn processus de négociation avec l' ancienne direction si point yu bëree bëri muy condition de travail muy la vision de son excellence le président de la république muy nekkinu personnel bi muy en tout cas lépp li nga xam ni mën na tee mën na tax liggéey bi ñu sas ñu mën ko doxale bi loolu amee bi mu ñëwee euh, comme ni ñu ko yoon mayee aussi ñu war a am ay réunion statutaire euh, loolu dakkoon bi mu ñëwee ñu toog presque deux mois peine am rencontre yooyu xam ni c'est des rencontres obligatoires yoo xam ni la loi le dit clairement mm-hmm. amuñu ko Euh, te boo amul li nga mën a waxtaanee pour man jafe-jafe yi doo ko mën a am solution ñu en tant que syndicat habilité ñu déclenché benn plan d'action pour euh, dindi loolu mais aussi pour mën a saafa saafara points yi nga xam ni moom la ñuy junj ci kanam. Mm-hmm. Euh, bi loolu amee ñu déclenché plan d'action plan d'action boobu aussi bëri woon na ay point yu ci nekkoon ñu dem ba si biir ba weer bi passé revenir na à la raison commencé di ñu recevoir ñuy toog di négocier mais loolu yëpp euh, mu ngi ñuy recevoir mais en réalité li nga xam ne mu ngi suuxal société bi mu ngi continuer di ko def loolu tax ñun en tant que euh, personnel ñu jóg tey bu ñu jëlee li si mel ni muy la gestion administrative euh, de graves fautes sont en train d'être effectuées par la direction par l'actuelle direction si li nga xam ni c'est contraire à la vision de son excellence le président de la République Euh, bu ñu jëlee li si mel ni procédure des marchés euh, bi ñu euh, ñu amoon li ñuy wax équipe ou marché de nettoiement bi nga xam ni année bii jeex la ñu ngi bi contrat bi jeexee marché boobu mu ngi woon à moins de dix millions pour benn service boo xam ni c'était un service satisfaisant à moins de dix millions commission des marché bi ñu defaat appel d'offres de ki ko gagné ñu def PV ñi war a signé signé bi mu ñëwee moom toog mu yëkkati marché boobu ne ki ko gagné si yoon bi ñu defee ouverture des plis duñ ko ko jox mu jël ko jox ko sa sœur à moins de dix millions la directrice na Nafisatou on est passé de moins de dix millions à vingt cinq millions marché boobu actuellement a moins de dix millions pour l'année à vingt cinq millions pour l'année un marché qui a été donné à sa loolu benn la ci gestion administrative muy fóot bu grave parce que ñi nga xam ni ñoo war a représenter le ministre war a nekk ci commission marché yi de passation des marchés sax teewuñu mais pire ces informations yi ñu jot même li nga xam ni mooy procès PV de délibération bi bi nga xam ni moo jógee ci commission boobu euh, PV boobu ñi ko waroon signer signer wuñu ko parce que dañu ñoom bi ñu war a signé mooy bi original bi ñu bi génn ci commission bi te ki ko gañe woon gañe ko boobu la ñuy signé mais bi nga xam ne dañ ko modifié pour jox ko sa sœur duñ ko signé loolu ah. benn la beneen muy euh, la gestion administrative toujours démb fi ñuy waxee ak yéen ni démb la télédiffusion du Sénégal dafa am un contrôleur de gestion bu bees mhm. boo xam ni c'est un agent de la RTS qui est parti à la retraite moom la ñu jël indi ko def ko contrôle de gestion. et vous trouvez ça anormal. c'est on n'en disconvient pas euh, l'organisation du travail revient à la personne morale mais bu fekkee les décisions day impacter la société ñun en tant que représentant du personnel en tant que syndicat habilité à parler au nom du personnel dañu war a taxaw euh, contrôle de gestion ñun ñëpp xam nañu sensibilité bi mu am ci société stratégie bi mu yor ci société. ñu defal ko un contrat de prestation ci information yi ñu jot muy des informations avérées contrat de prestation pour un poste de contrôleur de gestion au moment où dañu waroon def appel à candidature interne pour voir est-ce que un profil adéquat am na candidature boobu am na en interne def nañ ko pour dire vrai mais ñu ngi ko envoyé la note le lundi 31 juillet à 13h36 minutes mu waroon a jeex le lundi 31 juillet à 17 heures. d'accord loolu c'est juste quelques points par rapport ak li ñu war a wax yëpp. lii ñu jot a wax tuuti la si li ñu war a wax. dinañ dinañ ci ñëwaat.